Euh, loi bi ñu fi doon wax quand lii moom la doon jëriñ. bon si avant loolu situation vraiment lu ñuy ñaawlu la. parce que man yaakaaroon na ne sénégalais. warta mën a toll ci yenn yi. bay fekk un cadavre maanaam néew. nga koy lakk. loolu am na dëkk yu maam ay ind ak yooyu waaye wax dëgg yàlla suñu dëkk bii moom dëkku maam Sëñ Touba ak maam Alaaji Maalik ak maam Bukunta Njaasaan ak maam Limaamu Laay ak maam Baye Niass waaw donc ñun xamuñu loolu donc maanaam ndeyu ñaaw teef quoi li tubaab di wax somam fi ñaaw teef yem foofu la yem foofu foofu la foofu la ñu agiré léegi biir loolu aussi homosexualité pour nga définir ko même dans l'islam njaaloo dañ nga wut quatre témoins ci ce qui est quasi impossible même boo ko fekkee sax yow new kii il faut nga amal ñetti nit ñoo xam ne ñu ñëwoon dañu ñëw prouver loolu donc kii tamit njaaloo la rek ah affaire homosexuelle donc il te faut de thème donc ça veut dire que franchement des fois dañuy dugg ci gaam yoo xam ne duñ ko mën a kii man je je présume que c'est un homosexuel quoi je présume. Hmm. njort naa ne loolu loolu laa dégg ci nit ñi. donc mais li am solo daal mooy léegi nag loi bi amoon na fi ñu déposé ko pour criminaliser homosexualité mais loolu. même dëkk yi ñi nga xamoon dañu fa criminaliser ay homosexualité comme fu mel ni Iran 2010 ba léegi kenn reyu fa nit ndax homosexuel homosexuel la fu mel ni Arabie Saoudite aussi kenn reyu fa nit ndax homosexuel donc ça veut dire que loi yooyu ak njort yooyu dafay am limite parce que man jàpp naa ne sunum réew góor jigéen munu fi neexle parce que même mort l'homosexuel est pourchassé xam nga donc ça veut dire da ngay dee homosexuel mais li am solo daal mooy loi bi buñ ko mënee waxtaan ba porté ko ñëpp ko porté ko mu am mu am mu doon njariñu askan man man man loi xam nga lan moo ci intéressé na doon njariñu askan wi et mu doon une force dissuasive dissuasive maanaam mu fexe ba. loolu mu dina tax ñeneen ñi man loolu moo ma intéressé. ci Alioune Sow euh, quelques mots ci mbir moomu ndax waxtu wi euh, xoj nañu bu baax a baax balaa sa ngeen di ñëw. mais à la euh, à la base une loi c'est pour dissuader. loolu mm-hmm. loolu loolu la maintenant après am na ñoo xam ne nee ñu loi bi loi bi mi ngi fi ba tey est-ce que dañ ko war a yóbbu jusqu'à dix ans wala yooyu pour mu ñu mën ko criminaliser ak yooyu mais yooyu ça se discute ci ay bërëb yi nga xam ne mooy bérébu assemblée nationale ñii di ci waxtaan borom xel yi ak borom xam-xam yi ak juristes yi toog waxtaan ci par ak sociologue yi sax waxtaan ci ci réew mi xool nan la war a mën a def pour euh, mën a déggoo ci kàddu ba nga xam ne dañu am loi boo xam ne ñëpp dina am euh, presque euh, consensus mais loolu problème bi moom mooy loolu lu ñuy war a waxtaanee la mais dëkk boo xam ne gars yi taluñu ko ñi ngi tal leneen du ci lii la ñuy waxtaan lii ngi ñuy wax lii nga dégg nii Kaolack eh ben fii une semaine dix jours ci leneen la ñuy waxaat c'est c'est comme ça et puis dañuy dañuy dañuy tout faire tourner en bourrique li ñuy war Euh, avec euh, justement la plus grande ardeur moom mooy euh, jëfin bu ñaaw boobu nga xam ne dañ ci teg bët loolu c'est c'est c'est c'est dégueulasse c'est c'est moche néew néew néew amul néew amul bàkkaar néew am néew amul bàkkaar te suuf suuf suuf jombul jombul benn néew je ne imaginé ay nit taxaw nit ñoo xam ne yàlla moo la defar comme ni mu ko defaree nga dem naan da nga koy sulli ana ana dañu ne boo deewee ba ñu suul la ba nga dem tànk dafa am ñuy ñëw sa ginnaaw seet si la wax ak yow ñoo xam ne bu dee gëm nga yàlla yàlla moo leen yónni ñoo xam ne bu ñu deewee bu ñu suul leen ba ngeen génn dem bàyyi ko fa moom kese dafa am ñoo xam ne ñooy nekk seen ñoo ñëw ci ñi gëm yàlla laa wax man dama gëm loolu ñooñu di ñëw fekk si ko moomee ci bàmmeelam am yu ñuy wax ak moom ñii doon sulli est-ce que xalaat nañu loolu ñi doon sulli est-ce xalaat nañu kooku ñuy wax noonu loolu xott kese la que l'âme est partie que mbir mi c'est beaucoup plus profond que ça ñooñu est-ce que ay nit lañu. wala ay xeetu mala lañu. kontaan naa. ci euh, Cheikh Tidiane Niass xalifu Léona Niassène li mu wax laxas ci loxoom ba mu set wecc waaye loolu en même temps du bett. parce que ñooñu fi ñu tollu ci ngëm-ngëm fi ñu toll ci mbaax fi ñu toll ci générosité fi ñu toll ci njéggalante jéem a topp yàlla ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooñu nii rek la ñu mën a doxalee ñun nag ñun ñoo bon ñoo soxor am yeneen i problème di ko teg ci ay kaw néew di am haine jusqu'au point de ko dem di ko sulli ñun euh, c'est nous qui sommes waxtu wi ñu cëréwoon ñun ñoo ñàkk xool jërëjëf c'est nous qui sommes mauvais jërëjëf jërëjëf yàlla dimbali ba lii mu changé waaye néew de néew amul néew amul bàkkaar jërëjëf jërëjëf Alioune Sow di la jaajëfal bu baax a baax ci wuy si bi en tout cas aljuma bu jot nii lañ koy defee di la jaajëfal yow itam doyen Mademba Ramata Dia euh, ci teewaay bi aljuma bi ñu dëkk ma euh, incha allah di ngeen fa amaat euh, Doudou Coulibaly di ko nuyu bu baax a baax moom itam di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon topp ci Walf TV ak suñuy différentes plateformes Barka si Diop jërëjëf jërëjëf Assane Gueye ci coordination beeg réalisation bi ñu dem ci beneen région ba fekki fa Khady Sylla mu ñëw ak yéen ci le journal de